obligé na vraiment mobilisé na 110 éléments donc 110 éléments ak 17 pick-up pick-up ak ñaari camion pour le transport des bagages yi ak ñaari bus pour le transport des troupes bagages yooyu la donc bagages yi donc euh, c'est non matériel les appareils les produits donc euh, c'est ça. produit yi nu mu produit yi euh, nu mu ko mën a xayma bu fekkee ne désinfectant la ah désinsectisant désinsectisant du moins on a 40 litres. On a amené 40 la mairie va nous appeler, euh, va, va, mairie nous épauler qui produit euh, 30 litres, plus 200 euh, litres de carburant. lan ngeen fa lan la ngeen defagul. bon li ñu defagul euh, mooy euh, traité nañu site religieux site d'hébergement yi. ci toolu jumaa ji jumaa ji 1245. jumaa ji. waaw jumaa yi traité nañ jumaa ji voilà euh, donc lépp loo xam ne site religieux la ak site d'hébergement daal euh, traité nañ ko maintenant des na mais liste des daal ba après vraiment bëri loolu tax ñu bëgg bu ñu paree ñu accompagner ko ak séance de saupoudrage parce que xam nga comme produit indi mënul matale euh, askan bi yëpp donc mais saupoudrage bi ñu ko defee dina mën a matale parce que si jaww ji lañ koy jaarale te kenn umpaluwul que ne vraiment temps yi taw bi bëri na lool Touba donc ku ne taw on ne euh, vraiment yow ne ku ne yow aussi tamit euh, ne vraiment feebar waaw euh, te yemul si yooyu rek parce que am na si li ñuy wax weñ donc yooyu la ñuy ooyee les vecteurs de maladie maintenant taataay ndox yooyu moom mooy permettre yooyu ñu mën a nen am na yeneen parasites yu si mën a nen dana tax euh, muy feebar yu bëri yoo xam ne mën na ko génn moom moo paludisme fièvre jaune dengue donc euh, filariose, cyclosomiase, schistosomiase ak euh, l'encorseteuse ñam yi ñuy jaay fii aussi waaw ñam yi moom vraiment ñu ngi koy saytu bu baax a baax a baax parce que franchement boo xoolee euh, même même démb dem démb rek suñu éléments yi intercepté nañ benn commerçant donc bu doon jaay euh, meew nuura périmé waaw donc euh, benn benn bu nekk 500 grammes monsieur nañ si 38 xanaa anam yu ñu yu dund ci jamono ji nu nekk bu bu yoo bariwul mooy nekk mooy nekk problème li ñuy jaaxal mooy yoo bañ a bari waaye yoo bari moom ci jamono yi ñu nekk wax set wi war a am fukki fan ak nangam ci fii nu toll dëkk bi fees ni mu feesee ndox ak ndox mi yoo bëgg muy am tàggam mu war caa nen tojaat boof ca tojaatal ca lépp daje fi garab yi ni xas tabax yi ni xas euh, euh, bu yoo bariwul loolu moom danoo war a ñëpp taxaw laaj lu xew est-ce que galvanisation bi kese euh, benn benn pësin benn pësin benn pësin doyul ci fenn ay mottu la délarvation yaa ngi fekk wallax njaan wi moom wallax njaan wi lay lay lay lay lay wër mooy délarvation ndax wallax njaan mooy larve bon produit bi ñu koy fekk ci biir ndox ma lañ koy fekk def ko fa waaye bu wallax njaan wa matee ba nekk yoo ba naaw ba génn moo waral pompe yu ni pompe nga xam ne mënul daj kër yi waaye comité d'organisation bi daal yu mag yi mu tànn Ah, lu mel ne jumaa ji lu mel ne ñetti résidence yu mel ne daari kamil ak ak yi nga xam si ñoonu jox liste yi ci xalifa yi penk yi nu dem ka kër yooyu bu nu ko pompe noonu ba noppi eh, eh, eh, moom la ñuy wax intra intra domicile maanaam fajtal mi ci biir kër gi waaye du tax mu jeex ndax ni ma la ko waxee yow yaa ngi juddoo ci mbedd mi ci ndox yi fu ne taa fi mu ne daanaka mënoon nañu bu nu wuti woon liiri jën euh, tasaare ko ci yi taa ci Touba bu nu fi demee weer léegi ñu napp si lu lu Sénégal mën a dundee ci jën. loolu moo war a waral foo ci tim yéen ñëpp mën ngeen ko vérifier fu ngeen tim ndox mu ndox mu leer naññi te dawul. bu ngeen xoolee dafa fees ak njal balax njaan ndax foofu mooy tàggum yoo bu ko defee leneen li ñu koy mottalee mooy saupoudrage bi mënunoo dugg kër yëpp ni ngeen ko xamee sëñ bi bëgg na ko waaye mënuwul daanu dajul suuf mooy pomp yi nga xam si moom la ñu indi mooy yu mag appareil yu mag yi ngeen gis nga dañ koy wër jaar ci mbedd yi nga xam ni daanaka bu matulit mooy mottali mbaa mooy àggale yoo yi nga xam ni newuñu ci biir kër yi eh, ak euh, kër yi nga xam ne dugguñu jaat euh, produit bi mën a naaw mu wàññi ko tuuti waaye yoo moom euh, dañ koy am ba ba màggal gi jeex ba ba ba ba ba ba ba euh, euh, nawet bi di jeex dañuy am yoo ndax lu jiwoo jeexul jógu euh, loolu anglais mooy wax nag daal mooy bu dalee léegi day rey léegi waaye li ëpp solo mooy ramanage bi tubaab jox wax bu fa dalee mun na toog ay weer nga xam ne lu fa dal tam dafay gën xam nga loolu loolu jàpp naa ne lu am solo kon nag loolu mënuñu lu dul sant ci et gërëm leen ci parce que agent yi tamit gis nga leen ni ñu mobilisé wu ñëpp ngi taxaw pourtant naaj bi tàng na mais ñëpp ngi taxaw kon loolu yëpp wane seen seen passif ak seen pas-pas waaye loolu borom dëkk bi moom moo ko jaar moom na ñu xam ne doo fi def dara lu nga xam ne dafay dafay nax sax